nuyu bu baax a baax di leen ziar kontaan ci teewaat fii ci euh, waxtu yi continuer ni ñu koy defee saa su ne waxtaanee actualité euh, du ñàkk ci kanam ñu euh, gën a yaatal ci li nga xamante ne rek mooy tolluwaayu feebar bi di coronavirus ci réew mi gis nañ jamono ji lim bi nga xamante ne ni am nañ ko bu mu fi duggee ba léegi léegi mu jege li nga xamante ne ni moo di 10 000 cas mu nekk nag loo xam ni tiital nañu bëri waaye it nombre de personnes yi nga xam ne ñu ciy yokk euh, taxawaay bi ci yenn ci euh, gox yi du ñàkk dinañ ko gën a yaatawal leneen lu am solo moo di euh, gis nañu ci guddi gi nga xamante ne génn nañ ko dimanche bi mairie bu Kër Massar marchand ambulant yi daal di koy taal am na nga xamante ne taxawaay def nañ ko fa ca bërëb ba gis nañ it ministre de collectivités territoriales yi ki ci moom it ay kaddu ñaawlu li nga xamante ne moo di doxalin di yeneen i ponk ba tey foofu ci municipalité bi dinañ ci dellusi si ci kanam xamante ne mooy chef de cabinet bu euh, maire ba euh, di Moustapha Meng ki ko fiy teewal di euh, Matar Meng monsieur le maire nag moo fi waroon teew waaye ci mujjantal gi la ñu ne chef de cabinet am la ñuy yónnee bu ko defee ñu gën a yaatal waaye gannaaw 20 bi lay doon ñu ñëwit ci xibaar yi ci wolof ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi ñu dem rek Touba ndax bëri na ponk yoo xamante ne ni war nañ ko mën a waxtaanee bi ndax it ci nawet leneen it mu di gis nañ kilifa ji euh, dem nañ fa ku ci mel ni euh, Cissé Lo gis nañ fa taxawaayam euh, moom it ni mu koy faral di defee ca la mu wax waaye leneen loo xam ne war nañ ko mën a njàngat ci déplacement boobu du ñàkk ñu wax ko ak yeneen i ponk it di yoo xamante ne dañ ko gën a yaatal ak suñu gantay di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma nekk it président commission culture ak communication bu Grand Magal de Touba kilifa gi dal jàmm ci plateau. jërëjëf ñu lay sant bu baax di la gërëm. di am mbégte également ci des fii euh, tey jii di euh, sant aussi ak di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp. Mhm. Euh, di ci profité aussi di leen jaale kilifa gi nga xam ne génn na dem àdduna. Mhm. muy Babacar Touré. te vraiment mu nekkoon kilifa bu mag ci wàllu presse bi. Mhm. nekk aussi taalibe Sëriñ Mountakha moom aussi ñu ngi koy jaale di ko jaale mboolem Sénégal yëpp. jërëjëf Papis ziar naa maa ngi lay delloo ziar aram di dalal suñu gan bu màgg bi sëñ bi ñu ngi lay gërëm. di la remercier si présence bi di am mbégte également échanger yow ci lu jëm si mbiru réew alors ju ñëw euh, ci euh, la ma doon wax sànq mu di déjà euh, nawet bi ndax door na waaye saa suñ ko waxee dafa am gox yoo xamante ni ci réew mi xel dama fay dem fu mel ni Touba assainissement nekk na fa loo xamante ne nii problème la ndax saa su màggal di ñëw ñu yëkkatiwaat encore doléance boobu teg ci taawaay bi la yoon li tax ñu taxaw ci mooy njiitu ONAS dafa dem ca Touba waaye gis nañ kàddu yi nga xamante ne nii porte-parole xalif bi yëkkati na ko muy Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ñaawlu euh, doxalin ba euh, tey naka lañu war a mën a jàppee li nga xamante ne ni moo di euh, taxawaayu nguur gi jëmee ci wàllu assainissement foofee ca Touba. waaw jërëjëf xam nga xam nga assainissement Touba dafay Touba dafay dëkk bu mag Touba léegi disons métropol la di ñaareelu dëkk Sénégal yaatu trop trop trop trop. bari woon foofu aussi ay dégg gi mel noonu. Hmm. léegi nag comme ni dafa bari foofu yëpp dañ ko dëkk te xam nga ndox moom du du tux. waaw loolu moo tax ba besoin d'assainissement yi. tout le temps dafay euh, dafa yokk bari na loo xamante ne bii quand même nguur gi def na ko fa euh, ndax président bi mu léegi dañ fa investir war naa mat 23 milliards mais teewul par rapport aux besoins de Touba dafa des. li nga doon wax léegi nag ci mbiru. Euh, naasana mi loolu xam nga xam nga àdduna si dafa am fu mu tollu bu ñu àdduna léegi dafa am disons li ñuy wax démarche participative. surtout léegi moom la ñu prôné partout te dafa am exigence de de transparence am également euh, nit ñi di ko soxla moo tax ba nit ki boo koy defal dafay baax nga ànd ko ak moom surtout bu fekkente ne bii da nga nekk foo xamante ne bii danga nga yor loo xam ne ñëpp lañ ko bokk. Mm. Euh, la la fa teg moo di nga saafara jàngoro yi ñi nga xamante ne bii ñooy citoyen loolu nag boo koy def dafay baax aussi ñu yëkk te ni ko Sëriñ Bass waxee projet bi moom moo ko doxoon. ba ñu may ko Touba ëpp na 12 milliards donc projet bu bu mag la mais aussi projet boo xam ne projet bu am solo la parce que Touba mosul am assainissement des eaux usées donc au plus vert rek moom lañ dem moo moo amoon assainissement mais bii eaux usées la nga xam dana ci branché loo xam dana mën junniy kër ak genn wàll. Hmm. bon moom nag li nga xam ne moom la wax. moo di ne bañ ko doxee ba noppi bañ doxee ba nga xam ne noonu la ñuy doxal liggéey bi ñëwaat duñ ci rendre compte ne ko sëñ bi fii la toll nii la ñuy doxalee nii la ñuy def donc loolu mooy li nga xam ne moom mooy. est-ce que est-ce que est-ce koo koo jiite sa sa di ko yedd ci penc mi. Euh, Serigne Bass kilifa la xam na la may def aussi et c'est quelqu'un de très aussi xam naa ko yéen ñii aussi war ngeen ko xam Sénégal yëpp xam nañ ko foog naa ne bariwul loo xam ne dana ko yëkkati kàddu ni ku yiw la donc xam na li muy mais mais aussi dafa am responsabilité. Mm. démb am na lu wax nee na mbiru Sëñ tubaab duma ci masla duma ci ci xarituwaale parce que si loolu moo tax ñu ñu teg ko fa. donc du du du mbirum boppam affaire communauté bi la. Euh, nee na wax wax na ak moom ay yoonu yoonu yoon amul saafara donc aussi xaj na waxutoo na moom keroog mais xaj na murid yëpp loolu wax na la kën mbir mi nii la demee. Mm-hmm. mais li ci am solo rek moo di ne projet yi day noonu parfois dina am ay incompréhension ay manque de communication mm-hmm. mais tey jii ñoom yónnee nañ fa ay ndaw. dem nañu foog naa la ca mat a leeral lu ci ëpp leeral nañ ko nga xam ne kon mel na ne loolu tey jii mi ngi ci suñu ginnaaw ñu fex rek ba su benee ne la nga xam ne moom lañ fay def di ko jox kilifa yi parce que aussi président dafa am loo xam ne fa la fa la teg sëñ bi mm. te lépp lu def Touba sëñ bi la koy teg parce que ñun dafa ñoo neex ñu jël suñ lépp jox ko sëñ bi dénk ko ko amatuñ ci jugement donc boo wax rek sëñ bi rek wax nga ak ñëpp xam nga kon aussi foofu yomb naa yomb naa lijjanti donc ñu fexe ba yu mel noonu ñu di ko bañ mais en tout cas waxtaan nañu mm. jubóo nañu mm. incompréhension maintenant mi ngi Euh, sëñ bi foofu laay desandi ba léegi pour Sénégal yi nga xamante ne xëy na comprendre ñu. Mhm. wala bokk li tax ba mu amoon besoin communication au fond dans le détail mais lan la moo war am communication ba lii bañ a war a mun a am diggante Touba ak ONAS par exemple. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga projet bi dañ boo ko def ci barab d'abord da communiqué ji dafa dafa yell d'abord ne serait-ce que pour président bi nga xam ne moom moo la ko sant. parc que tey jii boo toogee tous les trois mois tous les six mois nga dikk ak sa équipe nga toog ak sëriñ bi. nga wan ko génn say plan ne ko sëriñ bi fii la ñu toll lii la ñu def lii la def lii la ñu def loolu rek même dafay jox visibilité projet bi donc ba pare li ma la léegi nit ki dañu am dañu am benn exigence boo xam ne dañu euh, dañ ko yittewoo dañuy dañu romb gis ñuy gas bu ñu romb gis ñuy gas day indi gàllankoor ci seen dem ak seen dikk donc foofu si soxla nga wax leen lan moo tax ngay gas fii nga ne maa ngi gas mais bu yàlla dimbalee bu li may gas fii ñetti weer ñetti bu jeexee seen dund encore seen nekkin dana gën a ëpp ay jàppandal donc loolu foog naa ne besoin de communication boo xamante ne population yi dañ ko amee te foofa ñun taalibe yi suñu interlocuteur mooy sëriñ sëriñ bi interlocuteur donc mooy état bi kon ñoom ñoo war di wax ak moom sëriñ bi ñun di wëlbati ko di wax ak ñun taalibe yi. taalibe laaj moom mooy euh, aujourd'hui euh, parce que boo waxee assainissement. Mhm. Euh, ci Sénégal matlewul Sénégal dafa am problème mu assainissement parce que mu ngi si ay jéego pour pour dabu. Touba bokk ci dëkk yi nga xamante ni chaque année chaque fois la ñuy jàmbat problème assainissement état yi départ nañ si du temps le Diouf Wade aujourd'hui yi le problème reste entier. mais est-ce que Touba ñoo waxul seen besoin li ñu bëgg wala nguur gi mooy jël ay engagement yu ñu respecté. besoin yi moo bari boo xoolee président bi mu ñëwee en na fa nekk di liggéey euh, de juin 2018 assainissement fa nekkoon yokkoon nañ ko 1 milliard 200 et quelque boobu lancé na moo dikkoon man keroog maa fa teewaloon sëriñ bi. trois mois après ñu dellusiwaat defaat 12 milliards pour assainissement donc des eaux usées donc boo ko ça fait un total de plus de 23 kon ña nga fay def 23 milliards du xaalis bu ndaw mais Touba moo day noonu Touba mu rëy boo xoolee aussi bu fekkee xam nga dëgg Touba bu fekkee xam nga ñu naan wax ñaari étage foofu nawet ba nawet bi jeex daawoo fa jaar tey jii da ngay da ngay jaar euh, amatu problème fi taloog euh, essence Darou Khoudoss bi amoon nañu problème fi taloog ko sëñ bi Fata amoon nañu problème donc bari na bari na bari na barab yoo xamante ne bii defar nañ ko ba résoudre ko mais nag léegi noonu nag lañ ko war a étendre muy continuer dem donc c' est des investissements yoo xamante ne bii énorme moom la dëkk ba soxla ci wàllu assainissement ngir problème boobu jeex te assainissement dafa nekk loo xam ne donc nga def ba noppi gas ko suul ni ngi ñu ko gis te nit ki bu fekkente ne bi taataa sonal na ko sonal na ko ren boo ko dindee bu déwénee daf koy fàtte donc tu as l'impression que defuñu dara fekk aussi ñi ngi def quand même effort yu mag notamment ONAS bi vraiment mi ngi def effort yu rëy rëy rëy mais li am solo rek moo di ñu gën ko communiquer gën ko xamal nit ñi wax leen fi nga xam ne foofu la ñu toll wax leen également fi nga xam ne foofu fa la ñu jëm ak li nga xamante ne bii mooy ci des. programme boobu kañ kañ lay yem parce que nii xëy na événement mooy profilé wu à l'horizon ñu ci taxawaat di ci wax euh, fileeg boobu ndax liggéey ga dana yem fileeg boobu est-ce que nit yi dinañ nekk ci condition yi nga xamante ne nii bu ñuy waajal yenn euh, ci ci ci dëkk ba mu nekk loo xamante ne du sonal. ñu xam nga dañu am euh, dañu am un problème de planification surtout à Touba. Euh, tey jii la nga xam ne moo moo mooy la waroon mooy ñu am un plan directeur sur une très longue période daal ne kat voilà les besoins de Touba ci wàllu assainissement ci wàllu hydraulique ci wàllu voirie ci wàllu tel tel ba ba mu jeex tàkk. Hmm. bu ñu amoon loolu nee naa ñu ci jukki ndànk-ndànk di avancé dem parce que loolu njariñ bi muy am moo di dafa jox euh, dafa la jox vision dafa jox également visibilité li ngay def dafa tax ba nit ñi si man a toog xaar ndax nañ lii lépp nga def waaye lii nga njëkki lii ngay jëteg lii ngay jëg je pense que ci loolu la ñu war a jëm loolu bu ñu ko defee tey jii rek mais c'est sûr que nit ñi mun ñu xëy xëy defarandoo assainissement bi donc